Abdoul Aziz euh, Diop maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Ndeye Comba. Abdoul Aziz Diop nga nekk ancien membre euh, bu comité directeur bu bu ONG Publiez ce que vous payez fii ci Sénégal lan moo leen motiver woon ba ngeen samp ONG bi di Publiez ce que vous payez. waaw ci taarix Publiez ce que vous payez ñu ko samp Sénégal en octobre 2011 maanaam pour indi yorin wu sel ci meññeef yi jóge ci biir suuf. pour ci taarix ñu ngi ko sant Thiès octobre 2011 ki ko njëkk jiite mooy président parmi les a Ibrahima Sori Diallo jiite woon ONG La Lumière fële ci booru Tamba ak Kédougou àndoon ak kuréel yu mel ni forum civil eh, RADDHO Amnesty ak yeneen kuréel ñu samp ko mu nekk bànqaas boo xam ne dafa eh, ëmboon société civile léegi nag bi ñu demee ba mille 2015 ci la la Publicico mondial def ni mu nekk section sénégalaise coalition bi daal bi ko santee lu dul yorin lu sell ba pare gën a jege askan wi nag. ñu samp cinq sept antennes régionales ci fépp fu ñuy exploité mine gaz pétrole Sénégal am na Thiès Kédougou Matam Saint-Louis partout ba ci Fatick fépp am na fay antenne régionale am ay points focaux aussi mu nekk daal coalition boo xam loolu mooy taarif bi te biñ ñëwee dem dañu ne nañ fexe ba Sénégal dugg ci li ñaan ITIE mooy initiative bu coobare boo xam ni état yi ñoo ci dugal seen bopp pour indi yorin bu sell te en 2013 le Sénégal dugg ci ITIE loolu tamit coalition bokk na ci liggéey bi nga xam def na ko ensuite ak texte yi ñu def jagal yëpp ci code minier pétrole et gaz yëpp liggéey nañ ci liggéey bu am solo daal di ci jaajëfal Ibrahima Sori Diallo ak ñi àndoon ñun ñëpp ñu woon ci biir parce que man maa ngi woon coordonnateur antenne régionale Thiès tey jii ki ko jiite tey mooy ki nekkoon coordonnateur bu Saint-Louis di Pape Fara Diallo moom tey jii moo nekk co président coalition Wouf Ibrahima Sori Diallo mais ñun euh, jot nañ ci liggéey daal ba bàyyi foog tey ay suñuy rakk yoo xam ne ñu ngi continuer liggéey boobu. ba pare euh, nekk ITIE aussi parce que dañoo bokk ci ITIE man mi bokkoon naa ci ñu teewal coalition bi ci comité national ITIE maa yoroon commission communication jiite woon naa tam forum civil au niveau national nekkoon coordonnateur national adjoint. nekk kuréel euh, Publiscopé kuréelu organisation non gouvernementale organisation de la société bi yoo xam dañu am crédibilité am légitimité ku mel forum civil lumière radio yooyu pour leeral baax ndax Sénégal dafa am xeet bu bees bu xew léegi muy ay activistes ñoo xam ne ay ING lañu ay individus non gouvernementaux ñoo xam ne amuñu légitimité. am amuñu légitimité amuñu crédibilité te dañuy wax ci ci seen tur rek mais waxuñu ci turu kenn. Hmm. te ñoom souvent da ngay gis ñoom ñooy nekk réseaux sociaux yi ñoom ñooy wax yoo xam ni du tegul dara daal loolu tamit dañoo bëgg ñu leeral ko. Hmm. tamit taxawaay bi société bi dafa am parce société bi dafa war jouer le de contre pouvoir sans être ni contre le pouvoir ni contre l'opposition mais dafa war a tëddee ndey ji ñu nag coalition publique boobee tànk yooyu la euh, tey jii euh, Abdoul Aziz Diop ñu daal di jëm ci wàllum exploitation pétrole bi fii ci Sénégal ak régime bu bees bi nga xam ne. Euh, président Bassirou Diomaye Faye moo ko jiite tey jii yan suggestion ngay def jëmale ci autorité yu bees yi ci wàllum exploitation pétrole bi fii ci Sénégal. waaw li ma leen di daal digal mooy xam ni ñoom am nañu chance ndax liñ ci fekk mooy texte yi moom su dee ci wàllu réforme Sénégal waajal na boppam réforme yi dafa jiitu exploitation bi ndax su dee code pétrolier bi amoon quatre-vingt-dix-huit jag-jagalaat nañ ko en deux mille dix-neuf dee code minier deux mille trois jag-jagal nañ ko en deux mille seize am na loi sur le contenu local gën a jege gën a yeey am na loi sur l' encadrement des revenus am na ci dugub dañ ci téye loi sur le code de l' environnement donc réforme yooyu yëpp nag dafa jiitu ba pare y a le débat public aussi maanaam coow li dafa jiitu exploitation donc li ma leen di daal mooy nañu continuer dynamique bi maanaam réforme yi nga xam jot ko fekk ñu seet li ci gën a baax ñu gën koo ñoŋal liñ war a jiyeen ci tamit ñu mën koo gën a jiyeen ci nag pour l' intérêt du Sénégal mais lépp ñu ànd kook dal ànd kooku ci parce que ñi liggéeyoon loolu ñu ngi fi te li ñu commencé gis aussi am na loo xam ni euh, ça ne sert à rien maanaam jëlee fi ay nit indi ñoo xam ni tey dañuy làmbatu wala tâtonnement expérimental man gisuma loolu su dee secteur bi dafa nekk secteur bu névralgique ñi nga xam ne c'est de grands commis de l'État ils ont servi l'État je pense que nañu leen bàyyi ci seen place c'est important loolu bàyyi seen place mooy tey jii régi bu ñëw di indi say nit waaye les mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut c'est secteur nekk boo xam ni am na liggéey bu am solo idée aussi gis nañu liggéey bu am solo bu ñu ko def nga xam ni tey Sénégal am na ñaari xayma yu mu def euh, en deux mille dix huit ak deux mille vingt et un ñaari xayma yëpp mu am ci ndam bu am solo macha allah loolu lépp nekk ay lu ñu war a consolider. ak beneen bi di ma leen di conseillé nag mooy ci wàllu contra yi nañu bañ a gaawtu ni tëb tëb rek ne dañuy renégocier contrat contrat renégociation dafa am ay contentieux yu ci ànd ndax mënoo tëb tëb rek wax ko noonu lu waxu mbedd da ngay bàyyi ba contrat yi jeex. nga woo entreprise yi ñu renégocier ko te loolu lañ ci ànd ak borom xam-xam yi parce que loolu boo na ci Sénégal ci suñuy sooxe un déficit en ingénierie contractuelle suñu contrat yi ni ñu ko négocier yu bari baaxuloon ndax entreprise yi li ñu ci gagné dafa ëpp état bi gisul ci boppam communauté yi seen bopp mais loolu fu ñu renégocier ko ci nañ ci ànd ak ñëpp nañ ci ànd ak dal loolu tamit dañ leen ci encouragé surtout contrat yi mel n yenn sociétés yi léegi mu beneen bi aussi contenu local ñu gën a jëmmal loi boobu pour que secteur privé national mën a capter opportunité yi nga xam ni moom la contenu local am ndax soo xoolee dernier rapport UTR chiffres yi foofu laay pour firndeel li may wax rapport bi def ni Sénégal deux cent soixante quinze milliards le secteur extractif bi généré sur les revenus mais deux cent quarante deux milliards moo dem ci budget état six virgule quatre vingt cinq pour tey jii ci collectivités territoriales yi matul juróomi milliards foofu aussi parce que ñun du mais contenu local boobu may wax deux mille trente quatre milliards la généré mooy ci fourniture de biens et services ci paiement aux fournisseurs mais ci loolu sept cent vingt huit milliards rek le secteur privé national gagné te du yàggul gis nañu président woote na secteur privé pour waxtaan ak ñoom mais bu mu ko yemale rek ci les capitaines d'industrie parce on n'a pas un secteur privé national fort mais nañu xool les PME PMI ñu dooleel leen ak les GIE surtout dans les zones pour ñu capter les opportunités liées au contenu local pour changer paradigme ba nga xam milliards yooyu Sénégal mën ko capter mu créer ay créer ay richesses parce que secteur bi ñëpp a ngi ci yaakaar suñu foo tourné da institut du gaz et pétrole alors que secteur du employé lu bari zéro virgule dix sept pour cent rek mooy xayma bi itee génne muy huit mille neuf cent soixante dix sept emplois mat sax neuf mille mais écoles yi ñuy bind formation yëpp nañ ko xoolaat parce que c'est des xam dañ ko war a valider mu méngóog am besoin des entreprises yooyu yëpp aussi ay yaakaar la yoo xam ne il faut ñu euh, langage boo xam ni gën a joxe daal information citoyen yi te loolu ITIE ku dugg ci situ ITIE tey lépp lu waaye soxla ci xabaar yu weer diggante contrat yi ba fañ koy séddalee diñ ci am information sur toute la chaîne valeur loolu nag dañuy conseiller les nouvelles autorités ñu kon ne daal jëm dynamique bi les propriétaires réels tamit mooy bénéficiaire effectif dégg nañu président na ko premier discours am lu am am solo la mais loolu fekk na ko fi dañoo war a fësal ñen ñoo nekk ci ginnaaw entreprise yi pas les personnes morales mais les personnes physiques su dee Abdoul Aziz la su dee Ndeye Kumba la su dee Massamba la su dee mm. Ibrahima la ñu génne seen tur fësal ko soloolu ñun dañuy ñaan sax bu mu yem ci secteur extractif bi nañ ko def ci immobilier bi ko def ci hôtel yi hôtellerie bi parce que secteur la yoo xam ni euh, daal la fa nekk daal ci xaalis bi soo gisee Dakar ni ñuy jógee hôtel yi nañu xam ñen ñoo nekk ci ginnaaw parce que des de sécurité nationale aussi et de souveraineté nationale. ñu wax si euh, Abdou Aziz ñu wax si code minier bi lan nga ñu si mën a wax est-ce que war nañ si indi ay coppite waaw wala déet. si code minier bi euh, xam nga code bi 2003 bi dañu xëcc entreprise xam nga ñun. benn secteur privé national amul capacité pour exploiter tam du ko exploiter parce que am na yeneen priorité ci wàllu santé éducation il faut multinationales yi ñëw donc dañoo xëccoon multinationale ba ñu ñëw mooy code minier de 2003 ñu ñàkk ci ay milliards yu bari nag ci exonération fiscale ñuy wax sax ay cinq cent et quelque mais code bu bees bi 2016 dañ ci di jag-jagal yu am solo mais li ci nekk Sénégal ñun li Burkina bay wax Sénégal dañuy xalaat xalaat yu rafet am texte yu baax waaye dañ ko dul jëmmal maanaam la mise en œuvre pose problème donc code minier de pour am les fonds de péréquation yi war a dem ci collectivités territoriales yi soo gisee Sénégal plus de six cent deux collectivités territoriales euh, arrêté bu mujjee génn arrêté deux mille dix neuf cinq milliards deux cent quinze millions la nga war ko séddalee loolu du dara a la rek donc ñu war a fexe ba fonds yi war a jëm ci gox-goxaan yi donte les c'est pas des compétences transférées les mines comme le gaz et les pétroles ñu fexe ba gën koo baral gën koo yokk gën koo juyanti ak arrière yi beneen bi mooy le fonds d'appui au développement local aussi loolu am solo la parce que entreprise buy def tey supposons rek entreprise bu def deux cent milliards dañ ne la zéro virgule cinq pour cent de son chiffre d'affaires dafa war a ci gox goxaan yi yi sës rek suñu exploité donc soo jëlee benn entreprise tey rek supposons bu def deux cent milliards te bari nañ ci soo jëlee un milliard delloo ko tey commune ba mu exploité rek dafay suqali gox boobu ndax communes yi yooyu yi nga ci xam seen budget weesuul la daal code minier bi tamit gis nañ ci wàllu àq yelleefu doomu aadama le respect des droits humains il faut ñu gën a dooleel euh, ñiy contrôler ñiy saytu ba pare population yi seen àq seen yelleef ñu mën ko respecté parce que jël toolu jàmbur soo demee tey Kédougou da ngay gis que ni lor yi fa am ci wàllu or beek yooyu ak li ñuy exploité ci artisanal bi ci wàllu xaraxana ak loraange gi nii di ci ci ci ci ci ci avec le cyanure et le y a beaucoup de danger nga ñëw dans la zone de Niayes Thiès nga gis ñu nangu seen tool yi ensuite di exploité et Sénégal par bi ci am mooy ndey kumba mm. xoolal or bi liñ ci génn ci or yëpp des tonnes d'or mais benn gramme d'or duñ ko raffiné Sénégal lépp mm. dañ ko exporté mm. defaraat ko ñëw jaayaat ko alors on on avait prévu des comptoirs commerciaux on avait un secteur privé nos budgets ni leen dooleel ci wàllu tey phosphate lan la Sénégal nekk war a yaakaar ci agriculture pour développer réew mi tey ñu exploité suñu phosphate di ko exporté di ni ñuy importé engrais di importé ceeb alors que phosphate boobu mooy produit la acide phosphorique bi day far engrais donc autosuffisance yi wax yëpp yore jiyanti la il faut ñu rééquilibrer daal li code yi daal baax na mais mise en œuvre bi ba léegi entreprise yi ñoo ci gis en bopp mais Sénégal gis ci boppam population yi gis seen mooy indi ñaxtu yu bari. Mm. ba pare aussi ñu xool xaalis bi ci wàllu euh, nit ñi euh, ni ñuy assurer le suivi le suivi citoyen foofu laa bëgg a wax fexe ba citoyen yi passer de l'indignation à l'action maanaam wàññi ñaxtu bi jël texte yi sukkandu ji pour porter ces entreprises en action contre Dieu su dee dañuy violer seen ak yelleef sa loolu ñun def nañ suñu wàll mais état yi ba mu gën ci dooleel. Hmm. ci transparence transparence boobule sax est jàpp nga ne président Diomaye dina mën a relever le le défi si sa gis-gis. non transparence moom dama lay wax rek. Hmm. c'est un idéal. Hmm. transparence moom yéene la ay jéego la mais kenn dama ne am na lu fi jot am ndax Sénégal soo xoolee bi ñuy wax coowu contrat. ñuy mhm. yàlla na ko yàlla yërëm Boun Abdallah Dionne moo nekkoon premier ministre moo Abdou Mbaye amoon na ci polémique ci wàllu contrat yi en 2007 mais loolu moo indi tey te xanaa xamoon coow sax dafay baax ndey kumba léeg ci wax mais coow bi na tegu ci xam-xam na tegu ci defar. Mhm. coow bi mu amee ñun boobu ñu ngi ci la ñu chambre des mines état bi waxtaan. parce que code minier de 2003 article 68 daf noonu y avait les clauses de confidentialité contrat kenn daana ko fësal mais ci loolu lañ jëlee ba contrat yëpp léegi tey nii en ligne soo duggee si duggee contrat boo bëggee gis di nga xam kan lañ ko signé fan lañ ko signé ak durée bi ak ak contrat bi nan la ëmb donc contrat yëpp mi ngi en ligne sa boobu la publication était encouragée loolu tam dama koy leeral en 2016 norme ITIE c' est une norme kenn obli kenn defu woon waree maanaam c'est en 2019 que lañ ko rek obligation mais Sénégal déjà en 2016 publié nañ contrat yëpp donc transparence ay jéego la rek les les professeurs effectifs dégg nañ président Diomaye wax na ko mais am nañ ci recommencé génn seen tur mais dañ ko war a gën a euh, parce que loolu problème de sécurité la ndax xam nga Sénégal dafa nekk un pays convoité ce n'est plus un pays demandeur soo xoolee bu njëkk ba ñun dañ daan jéggaani ñëpp mais léegi ñëpp ñu soxla te li ëpp mooy gaz beeg pétrole bi nga xam ne feeñ na fi ensuite ak les richesses phosphate le zircon yooyu yëpp nekk ay meññeef yoo xam ne dafa mën a jur bénédiction maanaam xéwal waaye comme mën na jur aussi malédiction moo tax foofu tamit damay wax ñu ànd yi nañu jël liggéey waxtaan si lépp nañ ko waxtaanee ba pare éviter tamit li nga xam ni mooy suñu tissu social mooy suñu patrimoine immatériel li nga xam ne kenn du ko lekk du ko naan mais dañ koy yëg mooy suñu jàmm ji ak suñu stabilité te xoolee dëkk yi ñu wër yëpp ay gis ne li xaw du tudd ay tur pour éviter un incident diplomatique mais li ñu wër région yi ñu wër yëpp gis nañu pays Sénégal nag moo tax tamit maa ngi wa attiré attention aussi dégg nañu premier ministre bu ci dem il faut ñu li président bi ci jógee waxoon la patrie avant le parti nañu bañ a jaawale parti ak patrie parti association la dafa mel ni tey fekk da nga am benn xar mu jigéen wala laa dul bokkul sa jabar sa jabar mooy sa jabar nga xam mais dégg nañ moom ne dina def tournée dans la sous-région il est libre de le faire bien sûr mais bu mu dem c'est-à-dire au nom de l'état na na teggi tiwu premier ministre am fii dem na dem en tant que parti parce que lu tax état bi tey war waruñ ko dugal ci yenn yi quand je dis c'est-à-dire l'état est sacré et ensuite suñu jàmm ji amul dara loo xam ni tey war nañ def lu ko mën a indi lu ko mën a xaw ma nan laa ko mën wax waxee sax pour mm-hmm, mm-hmm. olof bi mu xaw a déwén cest suñu jàmm ji daal moo gën or moo gën gaz moo gën moo gën lépp te loolu lañ ñëpp naree loolu daal ñu ci attiré ba pare waxtaan bi nañ ko continuer mais na ànd ak dal. Hmm. dernière question ndax enjeu yi dafa bari trop. dëgg la ndax Sénégal façade maritime ñun rek réunions yooyu wax lépp soo xoolee façade maritime. Hmm. li tax ñu gën a soxla Sénégal mooy façade maritime bi loolu foofu rek laa yem ci wax bi mais ñëpp xam ñi xam dinañ xam fi may waxee. fi ngay waxee euh, dernière question Abdoul Aziz euh, juste polémique bi am coow li am si euh, euh, scandale foncier yi am un peu partout Sénégal euh, surtout avec le régime de Diomaye euh, lan ban analyse nga siy def exactement. non xam nga ni du lu bees xam nga suuf moom. dégg nga man leen pays boo dem surtout Sénégal conflit moom si wàllu foncier. dafee yàgg foo gisee gis nañ fi mbaam gis nañ fi yeneen mais xam nga man li ma am toujours Sénégal dafa mel ni réew mi yëpp ñu bon daal ñoo fi bari ay luubalkat wala saadikat kenn baaxul parce que soo gisee presse bi wala tey à la une nit ñi dañu yàkkam di scandale ak weerante ak déballage te yenn saa dafay laaj maandu dafay laaj dal ma jàpp ni lii luñ mën a saafara la maanaam du lu ñu saafara ci benn fan ñaari fan mooy am na lu fi am loi bi tënk foncier la loi sur la loi de 64 xam nañu na elle la commission nationale de bii nga xam ne professeur Moustapha Souran rahmatullahi alayhi moo ko woon def liggéey bu mucc ay professeur Abdoulaye Dièye mais conclusion yooyu mujjul fenn léegi nag yooyu lañ ko jëlaat ñu contextualiser ko amaat tëggaat beneen loi ak ay textes yoo xam dafay jëm ci wàllu yorin wu sell ci foncier pour éviter tout ce qui est conflit éviter yi nga xam ni day ni ci am cest à ñun dañu war a jógee ci indignation maanaam jógee ci ñaxtu ànd ak jëf mais jëf bi na ànd ak dal na ànd ak Sénégal ñun ñëpp ko bokk c'est-à-dire ñun ñëpp ay dama koy wax toujours dama naan leen magistrat bi ñu naan la justice ñu àtte yoon sénégalais en cause la su dee jub na jub na su jubadee jubadi na président bi wax tey président bu fi mënti nekk bi fi jógee bi fi nekk tey ay sénégalais lañ ci ñun lañ jógee bu ñu ay malaaka du ñu ay yonent seen yéene rek lañ mën am seen wax sax wala seen jum dañ leen war a jubadi donc il faudrait que ñu démystifier xam ni ñu ñëpp suñoo bokk réew mi kenn gënu fi kenn maandoog jub nag ak ak ak ak yi ci nit la loolu c'est au niveau familial nit su jubadee jubadi la su baaxee baax na mais nañ génne ñu baax ñu Sénégal bari na baax moo tax foofu ci wàllu foncier bi damay wax ni ak yeneen ak yeneen mu ci wàllu pêche bi gis nga ñu ñu yëkkati de baax na mais nañ fexe ba jooyal texte yi xam nga kër su amee fiit néeku ba foofu ay peñ peñ hmm. kër gi su amee fiit ndox mi dugg ci saal bi dugg ci ëtt bi soo wooyee waa kër gi yëpp ngeen jël ay siwo di génne di ko yóbbu ci mbéy du du régler problème bi da ngeen war a xool fan la fit bi am su dee ci biir toilette bi la ngeen ngeen fatt ko su ngeen fàttee nag tey fiit ba fa muy jógee ngeen génne lii yi nga xam ne mooy conséquence yi après rek na ko mais soo toppee ci conséquence yi alors que cause bi fa nga xam ne fa la fa la source bi nekk laal foofu dañuy problème dañuy on revient avec les mêmes problèmes et puis ñu ànd dal aussi ñu ànd ak dal xam ne y a rien de nouveau sur les tropiques man dama naan leen changement c'est bien mais li ñuy wax nii ñun ñëpp ay Sénégal lañu changement doom am na mais changement de système système bi fi nekk. Mm. tey mën nañ ko juyanti parce am na lu baax am lu ñu war a juyanti bu ñu jàpp ni ay malaaka ñoo wàcc wala Sénégal dañuy xëy tuba rek Sénégal soppeeku ci wàllu transparence du demee noonu ci wàllu yokkute du demee noonu il faut du temps il faut que ñun ñëpp ñu ànd tabaxandoo réew mi xam ni les hommes les institutions demeurent président bu ñëw nag indi nga sa slogan depuis président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky la mais defarul réew jëf ñu tegu ci njub tegu ci mooy defar réew loolu laa laaj pour foncier bi daal jërëjëf Abdou Aziz Diop jërëjëf ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. voilà ñuy ñuy fàttali ni Abdou Aziz Diop euh, nekk euh, ancien <laughs> membre du comité directeur de l'ONG Publiez ce que vous payez au Sénégal ñu lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. On est ensemble. Bonne